dafa nekk gàmmu gu nga xam ne ren dafa am nu tombe li mu tombe mooy feebar bi nga xam ne nii mooy coronavirus ñu nekk ñu jël disposition yu nga xam ne nii bu soobee yàlla danañ ko ànd ak comité d'organisation bi ànd ko ak sëriñ bi ko digle ñu organise ko ci jàmm ak salaam jeexal ko ci jàmm ak salaam ba tax na

ci affaire sensibilisation ñu jël ko ba mën a organiser gàmmu gi ci jàmm ak salaam ba wax naa léegi sax ne état bi moom lim ci war a ci masque ak gel yëpp dina ko joxe mais nag du doy moo tax wax léegi comité d'organisation ne leen ñoom itam nañ lancé appel dix millions de masques sax bu ñu ko amee baax waxin la pour wax rek ne suñ ko amee jël jël. mais buñ amé lu nga xamné aussi dana mëna couvrir art ñepp ñi nga xamné ne ni ñëw ci gamo gi lool aussi moo ñu bu ko defee danañ organiser euh, loolu euh, insister nak ci place yi nga xamné ni mom ku fa dem ala kulli alen da nga tak masque da nga tak masque da nga laal gel lool comité organisation bi dana ci liggéey ak préfet liggéey ci ak police comme place yoyu dañ leen répertorier ba ñepp xam ko ñu def dispositif bi nga xamne ni fa lañ ko wara def bu loolu weesoo aussi ku ne gamma da nga wax kaaraange sécurité sécurité biti ak sécurité ci biir sécurité ci biti moy fepp fu nit di joggé ci 4 points cardinaux yi pour duggu Kaolack lo gendarmerie dana ko saytu en rapport ak sapeur pompier yi nga xam ñom itam ñe nek ci yoon pour en cas d'accident yu non sécurité ci biir kaolak loolu moom police dana ko toppatoo bu ko defee ñoo ñëpp nag muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñoom ñëpp danañ créer li ñuy wax PCO poste de commande commandement opérationnel samp ko fii ci Médina Baye comme ni ñu ko defee woon daaw pour saytu kaaraange ñëpp surtout saytu kaaraange li wër fii ci mosquée bi ak li jëm ci kilif kër kilifa diine yi plus particulièrement kër euh, xalif général de medina bay euh, wax nañ waxo santé wax nañ sécurité wax nañ ndox mu dess hygiène ak assainissement yoy yep dañu génn ci nawet te amna na mbedd yu bari nga xamné ni taw bi ma nga fa dess yoy dinañ fexé ba remblayer ko euh, assainir ko ba nga xamné ni nit ñi dinañ mëna jaar fenn seen yëre du tak si du du du seen dal du du ki ba lolu taxna ba amna mbedd yu nga xam dañ ko defaraat wax nañ ko nañ ko defaraat bu baax ba xam ne nii ñi ñi dinañ ci mën a def seen seen seen seen gàmmu loolu daal ci gàttal entre autres point retenir nañu ko euh, bëri na point yi bëri na mais daal comité d'organisation dinañ ci taxaw. Euh, jotaay bi tey jotaayam la ci keppaaral Medina Baye Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mi ngi xam ne du euh, dundam yëpp ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa la ko def. ay doomam yëpp moom la leen tuddee léppam sayyidina muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ngir topp boromam moom moo waxal ne ni en ibrahima la hilaaluhu hilaalun bada li naadirina jamaaluhu maa ngi ndokkeel sama bopp man rajo ibrahima Niass sama weer teru na mu namm ci weer wi ñuy fuglu di ko préparé te mooy gàmmu Medina bay 2020 bés bu ko fekkaan ci tukki wala ci biir réew mi rawatina bu nekkee ci tukki daan daan wax ne xal bi dawaaman bi Medina yarqubu ولا أرقب شهر الحبيب إذا أراه يقرب سما خليب من أجل مدينة ده غير صوب بي جعنا كون سلسي ورال جتاي بتاي موينة تندقلو خليفة بتاد بي سيدي الوالد آه، العالم الجليل المفسر مولا الشيخ محمد الماحي إبراهيم ياس مو سنتاني وون pour ñu tatagal ki nga xam ne mooy gouverneur kaolax ak monsieur le préfet ak mboolem service yi ñu àndat pour waxtaanee solo ga waajtaay ak fuglu gàmmu Medina Baye. jotaay bi jàll na ci jàmm waxtaan nañ ci mbooleem point yi nga xam ne moo nekkoon ci cahier de charge bi xam naa damay tënk rek ndax jotaay bi mi ngi bëgg a yàgg ci yéen di aju ci santé surtout santé nga xam ne euh, ren dafa nekk loo xam ne nii dafa am priorité bu rëy rëy rëy rëy ngir feebar bi nga xam ne moo lëmbee àddina euh, ak si woon Sénégal ba tax na wax nañ ci loolu wax nañ ci ndox mi wax nañ ci courant sociale wax nañ ci organisation wax nañ ci bitim réew ak biir réew mi parce que ku xam Cheikh Ibrahim xam ne dimension dimension internationale la. mboolem point yi nga xam ne defoon nañ ko ci cahier de charge bi comment mi ngi wax ne biñ ko déposé ci monsieur le préfet boobu ba léegi lépp niñ ko bëggee woon noonu la ko monsieur le gouverneur Kaolack defee ngir ut bànneexu euh, président de la république ci euh, famille Cheikh Ibrahima Niass. ngir ut bànneexu xalifa Medina Baye mu Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima ngir ut bànneexu askan wi ak taalibe bay bàyyi yi jugee ci bitim réew ak biir réew mi càmbar nañ yëpp waxtaan nañ mën nañoo wax daal ne suñ xel dal na ci liñ fi déggee ci ay engagement ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla may tawfiq may ñu ko may ko gouverneur may ko ñi mu àndat may ko service bi may ko COMAF parce que liggéey bi du liggéey bu ndaw parce que engagement taxut a def li nga wax am nañ yaakaar nag ne ñoom danañ ci taxaw parce que daaw daaw jéeg def nañ fi ay gàmm yoo xam ne nii moom préfet mi ak gouverneur moo ko jiite woon daaw wax dëgg yàlla la ñu waxante woon ñun daaw ah doomi aadama matut mat yàlla rek ko def waaye def nañ ci lu bëri loo xam ne nii dëgg-dëgg daloon na suñ xel bu baax a baax a baax